sa façon de voir les choses nga bëgg ko ci loolu il suffit que mu wax ak mbay paccax mi wala mu wax ak euh, Cheikh ah, mu bañ a nekk mbëggeenu nobel daal bëgg baa ngi nekk bëgg baa ngi ci biir ba ah, bëgg ba tey bopp ah, c'est que bëgg na bëgg bëri façon da ngay gis koo xam ne day bëgg nit am nañu nit ñoo xam ne dañoo am fleeru bëgg jigéen ju gàtt am ñu bëgg jigéen ju xees koo bëgg am na lu bëgg am ñoo xam ni jigéen ju am ween bu rëy lañ bëgg. Mhm. am ñoo xam jigéen bu mais ah, lu ci mën a bëgg la am ñoo xamante ne jikko rek munoo fi rek koo bëgg. koo bëgg doo ko rey. doo ko rey doo ko def ñaaw. jana koo bëgg doo ko doo di ko mhm. gaañ. koo bëgg doo ko rey. koo bëgg. doo ko rey. boobu dañuy daal di de sax ki nga xamante ni mooy Diana borom rubrique ku la solal en tout cas c'est très joli macha mais après foog nga décortiquer daal li nga xamante ni sol na ko ak mbay dafa mel ni tendance la. non trop mais tey balaa maa ñëw ci loolu. tey la. lundi lundi ci astuce et bien-être. tey lundi la lundi.

doomu aadama lii mm-hmm. déjà képp kuy doomu aadama rek war nga ko yox sa biir kër mm-hmm. parce que déjà day aax ndax mm-hmm. en premier fu mu nekk kër gu mu nekk seytaan dafa dugg xam mm. nga ah. déjà loolu rek lu am importance la bu ma jógee ci loolu damay ñëw ci beneen aspect muy beauté parce que jigéen balaa ngay ah, mën solo bu rafet wala maquillage maquillage bu rafet il faut nga am noo mel ci sa ci sa sa yaram maanaam nga set nga mën a toppatoo sa bopp toppatoo sa bopp nag ajow rek sangu rek yam foofu parce que am na ay jigéen yoo xam ne dañuy am ay acné seen kanam am ñoo xam ne bu ñu maquillé woo seen kanam day day niin maanaam elles ont le la je vais même pas dire le visage mais la peau grasse voilà aloe vera daf baax mm. déjà avant ngay def maquillage boo jëlee li nga xam ne mooy euh, gel d'aloe vera bi dama koy mm-hmm. ubbi nii ñëpp daal di koy gis démonstration en direct da nga koy ubbi. xanaa lii du la rendez-vous rek. Ah. ba mu sës wala tuuti rek. sës ba mu sës. <laughs> da nga koy ubbi. ba mu sës wala. démonstration loolu tamit. ah démonstration. il uh-huh. faut mu ubbi ko quoi. waaw mu ubbi ko. ubbi ko waaw c'est gluant. ok mm-hmm. maanaam ba pare tax. voilà xam naa téléspectateur mm-hmm. ñu téléspectateur ñu ngi naan kii la ñuy def nii lan la. Mm-hmm. mais avant dara aussi. c'est un antiseptique. Mhm. tey jii bu sa borom kër wàccee liggéey. Mhm. balaa muy def dara war ngaa mën a jël gel d'aloe vera bi. Mhm. nuyoo ko ko maanaam. raay ko ci loxoom. pour mu mën a ray micro bi. Mhm. jii balaa comme li ma doon wax sànq Myriam ci maquillage. balaa ngay jël maquillage di ko def sa kanam. Mhm. wan nga mën a jël li nga xam ne mooy gel d'aloe vera bi. Mhm. nga enduire ko ci sa kanam ba pare. ba mu wow ba pare dafa dafa gaa wow gis nga. vite fait wow na. bu woowee nga doog a def euh, li nga xam ne mooy maquillage. dina la protéger ba yenn produit yi. du mën a am euh, problème ci sa kanam. mais dañ ko raxas ba pare balaa ngaa teg maquillage lan di nga raxas ba pare boo defee sa masque ba pare danga koy raxas. door a maquillé wala ci kawam non da nga koy teg ci kawam da nga koy teg ci kawam même ni ma ko diwee sama loxo nii. su ma neexoon bu ñu tegoon fii ceebu jën. mën naa ci ba lekk du am benn problème. dafa weex te doo raxas. non non attends je te montre. Uh-huh. nga koy lekk xam naa. ba mu neex. eh lekk ko. Ah. Ah, dafa baax ci biir. Ah. maanaam déjà da lay permettre nga digérer bu baax. Mm-hmm. day lutter contre la constipation. Mm-hmm. teg ci boo amee jaare vite fait mën na ko arrêter. Mm-hmm. jigéen ñi nga xam ne ay jigéen ñu wérul lañ jigéen ñu ëmb ñi elles ont tendance bu ñu ëmbee rek seen biir yi day commencer di xasan. bu ñu ko okkee rek. yi day commencé di génn bu ñu ko jëlee di ko enduire ci seen biir dina tax du ñu okkatu déjà dina tax aussi bu ñu accoucher du ñu am li nga xam ne mooy vergeture ci seen euh, yaram mm-hmm. jigéen yi nga xam ne aussi dañuy dépigmenté wu dañuy xeesal mm-hmm. mën nañ def comme li ci ëpp jigéen yi dépigmenté du ñu jiwu bëccëg bëccëg bi ñu jël li nga xam ne mooy euh, aloe vera mm-hmm. daal di koy enduire sur tout le corps bu ñuy génn doog ko génn déjà dalay protéger contre les rayons solaires parce que Euh, dañuy faral di wax ne nii xeesal du ñu génn euh, bëccëg donc euh, lii boo ko jëlee nga diw ko sa yaram. Mhm. dina tax li nga xam ne mooy rayon solaire yi wala. nga ta yaram fii di xonq fii di maron fii di beige yooyu yëpp du la du la arrivé. Mhm. booy tëdd aussi. tous les jours si tu veux tous les jours mhm. avant d'aller au lit mën nga jël lii diw ko sa kanam day lutter contre li nga xam ne mooy le vieillissement précoce mm-hmm. parce que dañuy xool ne léegi dangay gis nit xale bu am trente cinq ans trente six ans mais day gaaw a màgget mm-hmm. voilà loolu stress moo koy def wala manque de sommeil trafic lu nekk mën na ko def donc booy jël lii di ko di ko di ko onyor ci sa kanam dina tax li nga xam ne mooy vieillissement précoce du la du la solal baax na aussi ci ci góor am na lu muy def ci góor mais loolu après être prochaine fois après mooy li a la da ngay wax ci góor da def ci góor waaw xam sama gars yi Momo daal Ndakaaru calme nag ndax voilà nañ bu baax a baax comme ni ko waxee rek dinañ ci dellu si waat allah dinañ si delluwaat donc euh, lii baax na torop baax na torop ci dundu ah, doomu aadama baax na lool euh, déjà ñi nga xam ne dañu jël poids poids bu bari